di wax ni li ñu convoqué point de presse bi moy dañoo génn ci benn réunion virtuelle ci suba gi réunion boo xam ni suñu secrétaire généraux section yi war nañoo mat 50 ñëpp ko fekkee mu am lu ñu fa nas suñu centrale syndicale mi ngi affilié woon CSA ba fay c'était en 2009 2009 qui a dirigé woon muy Mamadou Diouf bi Mamadou juuf demee dafa am ko ko wuutu ci bopp organisation syndicale bi mu tudd Elimane Diouf. Elimane ñun li ñu gis mooy li mu gën a mën mooy jalgati ay textes li mu gën a mën mooy féewale mbooloo. laataa ñuy def congrès gis nañ sa taxawaay bi ñuy def congrès gis nañ sa taxawaay bi ñu defee congrès ba pare Elimane moo tas suñu organisation syndicale wala ci tànk yooyu la taxawoon. C'est ce ñi jël parole ñëpp le matin Le nañ ko ko bureau confédéral bu ça, jeex Nous avons ngi congrès le 6 juillet 2021 Nous avons hein, mi ngi avons ñaari at organisation bu centrale syndicale dans dans l'illégalité parce que amul une instance une courriel, bu est ci biir centrale bi boo xam pas mandat bi comité des sages bi waroon jouer la médiation bi ñu dajee ak ñom dañu xam ni jafé jafé yi ñu am du safarou ben centrale syndicale rek mom la ñu gis suñu bop moy FGTS B bi mbaalo jo ci am jité dugg bañ fay dugg ñi ñoy nek premier syndicat de l'enseignement affilié à la FGTSB. B ñu lay doon self authentique te lolu day ubbi centrale bi ci secteur éducation nga xamni ni compté na plus de 110 000 enseignants am nañu fi ay jafé jafé yu ñu fi am ñun syndicat jàngalekat yi affilié wu ci ay centrale syndicale déggu len benn yon centrale yoy wax ci wala ñu dox ci wala ñu jëf ci lépp lu ñu am ñun ñoko ko suñu bopp am ko centrale bi nak daf ñi permettre ñun ñu gëna am doole surtout ci ay question d'international. national lu mel ni programme scolaire parce que programme n'est pas lu yiteel ku ci ne nga programme yi baaxul dafa war évoluer lu mel noonu bu ko ñaxtu nous ferons le portage au niveau véritablement de la centrale euh, bi nga devons fa